en direct ci li nga xam ne moom mooy la chaîne de la communauté TV3 Channel. Euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy seen conférence de presse bi la grande finale du tournoi CACD donc football féminin tey nag euh, ñu jàkkaarloog le coach Khadim Gaye bu ASC Joko ak capitaine Mama Dianké donc dañ leen di bàyyi ñu daal di nuyoo ginnaaw bu ñu nuyoo aussi tamit ñu wax ñu nan la ñuy préparer seen match. salaamaaleykum waa jam ñaajo maa ngi leen nuyu di leen sant si Xaadim Gay kot suuf ay see Joko Femini maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di wax rek ñu ngi waajal suñu final contre ay see Daaru Salaam dimanche incha allah. c'était pas facile ay see Joko ñëw rejoindre li nga xam ne mooy tournoi bi donc mu dabe euh, ñu gis aussi ay see Joko ci durant tournoi bi yëpp. à chaque match dafay ñëw di apporter du sang neuf à chaque fois dañuy gis ne beneen allure la gis ci jokkoo kenn xaaru koon mu qualifié final lan moo nekkoon seen secret ci compétition bi. secret bi lenn kese moo nekkoon dañuy liggéey rek moo ñu ko may quoi ñu liggéey ba yegg si fii ñu yegg si nii ñu bëri nag xaaru ñu woon ci final bi mais tamit liggéey rek yàlla jàppale ñu incha ñu jël coupe bi loolu la ñu bëgg incha ñoo ngi focus de ñoo ñoo ngi entraîné ak groupe bi en même temps ñoo ngi entraîné ku nekk seen kër parce que ku nekk day football ñii di basket ñu ñëpp on est des sportifs loolu moo tax am tamit dañoo comprendre doon kenn xam nga loolu mooy équipe comme nuñ koy waxee rek ko si jàppale ñu tamit ak waa koñ bi kenn bàyyiwuñu loolu moo tax kenn xaaruñu si woon nag de waaye li yàlla di def rek dañoo entraîné yàlla tam jàpp di waxtaanaale di dalal seen xel tamit parce que tam ñu ñuy dajal comme ñun la rek ni ñoom tam ñun ñu def ba egg final ñoom tam loolu lañ bëgg te ñoo bokk luñ bëgg donc dañuy dalal suñu xel di entraîner waale di organiser waale ay entraînement yu ndaw ak groupe pour waxtaanaal ku nekk joxe sa xalaat ak kur ci moom entraînement. Daaru Salaam kay xam nañ ni bu baax la yor na équipe bu baax trop trop mais ñu ngi siy liggéey bu baax ñu ngi liggéey bu baax ndax deux matchs yi xool nañ deux matchs yi nii yëpp deuxième mi-temps la dugal ay bio. loolu yëpp ñu ngi ciy liggéey bu baax pour buñ ñëwee final incha allah ñu xam nu ñuy jouer ak moom ci tactique de jeu ak lépp ñu ngi pare ñu ngi koy pare incha allah. waaw c'est vrai jokkoo moom ñu ko xam ñëpp ci ay coow lañ leen di dégg mais en réalité mais gars yi dañuy wax noonu rek mais man loolu gëmma guma ko quoi parce que booy dinañ wax ak ñoom ñu ñëw jouer ci mat ñu ñëw assister match bi ci fair play quoi. ñu gagné li ñuy gagné dem suñu yoon incha allah. sama kàddu bu mujj maa ngi woo ñëpp supporteru ay say jokkoo yëpp di leen woo pour ngeen ñëw nekk seen ginnaaw ay jigéen. jàppale leen ñu mën a dem incha jël coupe bi indi ko fii. Mhm. waaw loolu tam dëgg la ku dégg jokkoo ay naan jokkoo ASC bu bëgg xuloo la bëgg histoire ñun nag bu ñu focusé ñëw ba final soxla wu ñu xuloo soxla wu ñu ñu pour kenn bañ a xuloo jeunes yi ngay ñëw seetaan ñu football ñu jël jam ñaajo jokkoo Rayfina